ceex internet yéen ñi nga xam ne yéen a safoo seen seen King Production ay ca Adja delloo na ma micro bi fili delloo na ma micro bi ñuy jaajëfal Racine euh, bu Bidéo Mass di jaajëfal sama chéri koko boobu Cheikhou belle-mère nga xam ni yaay ji koo lakkal lool macha allah tey nag euh, ñu toog ak suñu nijaay suñu doyen suñu xarit mu doon koo xam ni souvent dañuy sawar di déglu li nga xam ni mooy ay kàddu ndax lépp loo ci déglu rek njëriñ la tey mu def dérangement ak déplacement ñëw géejawaay teewal kii di fan mu mbu mu nekk loo xam ne lu foor la ci ñun lu rëy ci ñun ndax ko xam tonton di Fall xam ni ndaanaan la macha allah pusoom ak rek la yor nekk ci biir xale yi di ñaw tonton Modou nuyu naa la. Eh, maam Diarra maa ngi lay fay di la jox sa wàccuwaay di la jox sa yéeguwaay ak sa njoowaanukaay <laughs> ak sa toogoo <laughs> ah voilà exactly mais kontaan rek kontaan si bés bi. et puis euh, rafetlu aussi nga toog jàkkaarloo man n'est-ce pas ñuy waxtaan. loolu moom loolu moom dama koy bëggee. xaaroo ko woon de. non non non c'est une surprise mais une surprise agréable quand même. yàlla am wóor na yàlla <laughs> surprise bu neex la. <laughs> tonton Mody fi may njëkkee ak yéen mooy dañu gis ni association yi bari na. Mm. ay ARCO ay soppi jikko lu ne am na fi yéen ak Baba Amdi ngeen taxawal benn mouvement bu tudd Rossi. artistes qui ci bari ñi ngi ci mel ni ñi ba légui comprendre ñu lolu nonu lan la est-ce que à travers King Production do jema expliquer ñen ci artistes pour ñu mëna comprendre association bobu lan moko yëkëti waaw mais ben, reçu liko taxay yëkëti moy fexé mooy fexe ba euh, dundu artistes yi euh, gëna ñong euh, seen liggéey itam gën a am njëriñ mais également ñom à travers reçu ñu gëna xam li ñuy liggéey lan la. Euh, mais aussi ñu am cadre de concertation maanaam euh, Bolo boo gis corps professionnel bogis, gis dafa baax ñu am langue foo xam nous dañ fay choses di weccoo xalaat n'est-ce pas di Dorundo, n'est-ce pas di xàcceendoo euh, parce que xam nga comme ni ko war fi bolo booloo mooy donc loolu moo war réussir Faire rek artistes yi booloo bokk xalaat andando, bon réfléchir n'est-ce pas Jim ci kanam aussi revendiquer ses droit revendiquer ses aq ak seen yelleef parce que xam nga boo koy xool Sénégal eh, filles bon ñun euh, nous sommes les parents pauvres hein, <laughs> des corps professionnels et ce qui n'est pas normal parce que ñun métier bi ñuy def c'est un métier qui est très noble waaw ñi nga xam ne ñu ngi koy exercer ci bitim réew euh, dañu doon vraiment ay noble non seulement dañu jafe waaye dañu am ay tolluwaay yoo xamante ne pour nous gis leen sax problème là. mais également nous leen di fay loo xamante ne lii euh, yow suñ la ko waxee sax da ngay mm-hmm. pourtant bon ñoom bon li ñuy def la ñuy def n'est-ce pas donc euh, ay nawle la ñu. donc ñun Sénégal aussi ñu ne bon pourquoi pas ñun. Hein, ñu fexe relever donc suñu statut euh, donc professionnel. fexe aussi ñu am suñu àq ak suñu yelleef bon que mu nekk ci état bi mais aussi que mu nekk ci société bi su ma nee société bi bon mooy ñi ñuy mm-hmm. c'est les producteurs c'est les réalisateurs euh, c'est particulièrement les bailleurs de fonds. Mm-hmm. mais c'est aussi le public parce que public bi aussi moom bi nga xam ne moom moo ñuy safoo daf ñu war di aussi ci lépp loo xam ne dañ koy n'est-ce pas pour am suñu àq ak suñu yelleef bon Russie loolu rek c'est un mouvement pour euh, la révolution donc des acteurs culturels au Sénégal waaw ñu fexe ba li fi nous ñu dindi indi lu ko gën n'est-ce pas c'est c'est je pense qu'un gros en grosso modo loolu d'accord tonton Mody Fall ñu gis la ci série Idole nga di ci amal rôle bu am solo ñu gis ne euh, saison bu nekk 26 minutes là peut-être sénégalais yi comprendre ñu loolu bi ngeen ñëwee ba li nga xam ne mooy saison 7 bi ñu gis ni sénégalais bu fekkoon 100 pour cent la 80 euh, pour cent yi ñoo koy consommé euh, loolu noonu lan moo ko waral. bon loolu li ko waral mooy euh, xam nga liggéey boo gis rek nit ki daf ci fexe am akam dafay fexe ba koom bi bi nga xam ne moom la ci am mu méngoo ak da nga am liggéey ba muy def te xam nga film dafa metti série nak raw ko gis nga lu melni idole mën naa ne ñoom euh, sen sen sen coût financier de tournage journalier ça varie entre 300 ba cinq cent par jour booleeg yow da ngay fay ay comédiens mais aussi mo da ngay jël ay décor ak yenen ak yenen ak yenen donc euh, mën na né série bi benn saison mënuñu ko def à moins de 200 millions pour le faire donc lolu xam nga du lu ndaw loolu su amul ndimbal euh, wala mu am fu nit ki sukkandiku pour def ko xam nga du mën a nekk en fait mm-hmm. parce que soo waxee qualité rek waaw da ngay wax vraiment un investissement quand même de gros investissement quoi donc loolu moo tax ba fi ñu toll nii Idole dafa obligé collaborer ak Orange euh, ba ñuy utiliser euh, application vidéo vidéo boobu nag bon liñ ci am dafay yokk koom bi nga xam mom bon moom dugg si ci production bi pour que ñu gëna mëna fay artiste yi donc lool rek la mais mais mais vidéo bi aussi c'est pas c'est pas impossible pour nit ñi parce que 500 francs la pour semaine semaine bi di ci seetaan lepp lo bëgg ci idole mën nga dellu ci ginnaaw ñëw ba seetaan dernier épisode bi seetaan yenen aussi série yu nekk ci Sénégal mais aussi seetaan des films bon occidentaux film américain yi lépp qui enfin dafa mel comme Netflix donc loolu suñu la ko euh, sa kanam pour 500 francs la semaine je pense que a na quoi bon d'autant plus qu'il y a la télé Il y a le programme de la télé qui est gratuit donc nous il faut ñu comprendre que ne euh, àddina mooy dox te ni muy doxee mooy euh, yow li nga xam ne koy seetaan te dañ ci def ay millions yu ah war nga ci waslu àq na waaw mbir c'est aussi simple que ça quoi mais man nag sama ci li nga xam ne mooy lecture bi ma jot a am man dama ne Ibou Guèye toogul peut-être li ma lay laaj question yi Ibou Guèye laa ko waroon a laaj moom en tant que scénariste mais dañu jàpp ni fi mërs duggee ak idole baaxul man loolu laa jàpp. bon wa, am na nag ñoo xam ne ñoom deux séries hmm. dañuy def bii ba mu àgg ñu tàmbali beneen bon xëy na xam nga euh, euh, bon euh, bët du yenu waaye xam na lu loolu bopp antan donc Ibou bu ci duggee muy dox c'est parce que dafa calculer xam natt boppam xam ne mën na nekk te effectivement ñi ngi koy def idol ñi ngi koy tourner avec Even Prod parallèlement ak ak ak hein. mais bon ñi ngi koy tourner mais du ma leen nag yomb na effectivement c'est extrêmement difficile mais on y arrive parce que nit en fait moom mooy relever défi mon ami maintenant metti na mais dama koy def donc ça ça a eu lieu ñaari saison yëpp dawandoo nañu te amu ci ben bu am retard ça veut dire que donc le lu lu mën a nekk la. dafay laaj rek ay moyens des moyens financiers techniques euh, artistiques n'est-ce pas bu bu bu doy quoi voilà. ñaar moo ma deseeg yow ma daal di dëj ndax ndaanaan nga macha allah. Euh, ci li bëgg ci <laughs> man taalibe laa damay jàng ba léegi nag. tonton moo di faal bàyyi ma sama métier. dama la gaay gaay xam nañ la de. <laughs> <laughs> ñu gis ni euh, li nga xam ni moom mooy euh, cinéma. Hmm. dafa am ay tête yuñ ci taamu. ba tax ne xale yëpp dañu daw ci série est-ce que loolu noonu nekkul loo xam ni luy wàññi doole cinéma la fii Sénégal parce que cinéma mën naa ne Sénégal bokkuñu ci lu ñu valoriser mook théâtre sur scène loolu noonu nga foog lan moo mën a régle problème boobu. bon cinéma au Sénégal li ko c'est une mauvaise politique culturelle euh, gouvernement bi mon moo waroon di ci def loxoom ba cinéma bi bañ a suux ben, benn dañ ko seetaan euh, ñaareel ba aussi bon euh, cinéma yomul, moo film cinéma bougis gis euh, ñu réaliser ko Sénégal loxo bitim réew da ciy dugg waaye il faut ñoom ñu dugg de ci xaalis parce que xaalisu cinéma mon moo donc ñun loolu la ñuy ñaan hein, chaque fois bon

Eh, ñom bokk nañ ci ñi ñi gën rañé ku melni Alain Gomis. Alain Gomis n'est-ce pas nek xalé bu ndaw mais euh, ñëw euh, gagné donc l'étalon d'or de Yenenga. Mm-hmm. n'est-ce pas le FESPACO. lolu mu doon ndam lu rëy nag Sénégal. lolu dalay won ne maanaam nit gis nga xelam xereñam ak ligéyam mën na ko yóbbu foo xam ne ay pexem sax tolluwu fa waaw parce que moom dafa ñëw gagné lu ñuy wax la coupe d'Afrique du cinéma hein euh, parce que étoile boobu depuis jamono Ousmane Sembène ba Tayji voilà sénégalais gagné Il ko mu gagné deux fois de suite alors moi je lui rends hommage. Mm. et je lui dis chapeau chapeau Alain. félicitations et Dieu a fait que mon en réalité euh, c'est un franco-sénégalais mais qui est natif de Grand Dakar. bi mm. nga xamné ma venu. ça yu sama sama la sama xarit la. wa Grand Dakar père. Euh, ah <laughs> Roots le foofu mooy Harlem City waaw manam deuk la bo xamné ne euh, dafa bëri lu fa nek lu wuté hmm. ba taxna euh genre euh, environnement yu mel noonu nit bo ci nekkee da ngay da ngay yew ci adina parce que da ngay gis lu né da ngay gis lu yomb gis lu metti euh, gis lu neex gis lu difficile donc environnement bobu xamna né conditionné na xeyna mom li tax ba mu réussir lo xamné ne sénégalais yi depuis le cinéma sénégalais amee ba léegi mosuñu ko réussir donc bimko gagner, effectivement euh, c'est le président Macky Sall qui l'a reçu en personne n'est-ce pas et lui a gratifié vraiment d'une récompense euh, vraiment royale voilà du ma ci détails parce que je le concerne. voilà mais c'est am Sénégal mhm. ça veut dire que le cinéma sénégalais bu ñu amoon dimbal tey nous euh, leader en Afrique parce que jamono bi euh, euh, Residac di am Sénégal boobu burkinabé yi ñoom bu ñu bëggee xam wala ñu dugg ci Séné cinéma dañuy ñëw fii Sénégal ñu jàngal leen ko mais tey jii raw nañ ñu parce que loolu lu ko war mooy sàggan sàggan gi mooy euh, nit nit tamit loo doonul taalibeem doo doon sëriñam gaa ñi dañuy parfois hein, parce que du ñëpp dañuy bëgg def cinéma wala ñu bëgg def sax théâtre te duñ ko jàng jàng ba ca war.

on voit que les gens def bëgg nañ ko te it ñu koy jàng ci biir bi donc loolu mën nañu am yaakaar ne donc bon nous aurons une jeunesse quand même euh, qui pourra en tout cas s'affirmer en tant que des acteurs de bon niveau professionnel ce am naa ci yaakaar parce qu'entre entre idoles des et Marichou Belle-Mère euh, bah, benen bi nu mu tuddati euh, euh, et aussi Dikon Dikon ak benen metel wa voilà donc y a des séries merci beaucoup hein, ay ay wundu mhm. non y a des y a des y a y a des choses y a de bonnes choses n'est-ce pas et puis cadre yoyu cadre da fay permettre artistes effectivement ñu ñu ñu métier bi donte ne sax dañuy dugg def ko mm-hmm. mais dañ koy jàng c'est ce qu'on appelle la formation dans le tas. Mm-hmm. voilà loolu xale ñu ngi ont avancé ñu ngi une am expérience et puis dañuy ñaan yàlla mu jëm kanam. parce que je vois qu'il y a des jeunes vraiment qui commencent à avoir de très bonnes dispositions d'acteurs comédiens donc c'est un bon espoir pour le cinéma sénégalais ouais. li gars yi di laaj man duma ci laaj parce que man dama naan bu ma sañoon. Mm. Euh, seenu Sénégal yëpp mm. série rek la ñuy suñu doomi réew ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy def ndax euh, lu rayati mbuum rek dee ca comédienne laa kon bu ma sañoon chaque jour di gis samay moroom di prester ma leen di xool di am di xool niveau bi fan la toll mais damay dégg ñenn ñi ci aar di wax euh, dina ne ki jàng théâtre sur scène doo ko doo ko doo ko soxla maanaam comédien bi wala comédienne bi parce que bu ñëwee ci téléfilm wala mu ñëw ci série faut bëgg que jël niveau bi nga xamni mo ci théâtre ñëw indi ko ci li nga xamni mom série est-ce que lolu nangu nga ko non non du bien du ben c'est que amna différence entre théâtre ak euh, cinéma mhm. pour ne pas dire film quoi parce que téléfilm cinéma yépp même règles yi la quoi c'est mhm. les règles de paramètres de découpage technique n'est-ce pas yoo xam ne ñoo mhm. waaw ku mu téléfilm ku mu nekk cinéma même principe bi mais ñoom principe bobu ñuy théâtre théâtre réel alors que cinéma dañu naturel simple comme dans la vie par contre théâtre xam un spectacle le boy centaines des milliers de personnes il faut que vous il faut nga am doxaline ci sa geste ci sa wax ba nga alors que cinéma bon dañ lay micro donc c'est la différence bi mais différence boobu en fait euh, loolu moo nous ñu coach hein. ay ay nit yo, xam des man bon peut-être dans le Sénégal ñoo xam ne dañ may solliciter souvent euh, pour coacher donc des nouveaux talents n'est-ce pas des nouveaux talents du théâtre de scène euh, wala ñoo nous ne sax déet mosuñu def cinéma mosuñu def théâtre mm. parce que cinéma en fait nit ki mën na koo bañee def mais dañ koy encadrer techniquement am na noo mais nag il faut nga am ay dispositions quand même il faut nga am loo xam loo mën wala lu nekk ci yow parce que nee nañu euh, aussi fu amul dara n'est-ce pas pour nga def fa dara du yomb mais par contre fu am as tuut ce pas pour nga développer ko euh, donc moom mooy gën a am base et tamit ci la nit ki gën a sukkandiku n'est-ce pas pour am lu mu génnee loo xam ne day am valeur ça veut dire que yow pour nga nekk un acteur euh, il faut nga am talent wala boog nga am yëg-yëg mm. yëg-yëg boobu nag nekk ci yow di nelaw moom la ñuy yee. voilà pour que nous joxe le ñu donc c'est ça en fait. Euh, mais ki nga xamni mom mo moo jaar ci théâtre euh, sur scène est-ce que amul lu mu ëppalee bénéfice touti ndax lu melni jeu d'acteur expression de visage mom dina ko jàng ci scène bi avant mo exi ci li nga xamni mom moy ci euh, côté cinéma bi. tay bu réalisateur bi waxé wala ki nga xamni mom moy narrateur bi rek automatiquement fay comprendre lan la ko bëgg wax bu dee niveau 1 la war a jouer wala niveau deux wala niveau 3 est ce que nekkul tamit bénéfice bi ëppeewul ci foofu. waaw mais bien sûr ki nga xam ne dafa jaar ci théâtre ba pare mon kooku dafa am ay prédisposition hmm. bokkul ak ku ci jaarul. kooku maanaam da nga koy wone ko wàññil fii yokkal fii tegal ni yemale ko nii. ok voilà ki ngay def ki ngay wax noonu bokkul ak ki nga xam ne nag il faut nga jàngal ko ABC. donc il a une avance sur les autres bon il suffit qu'il soit bien encadré bien coaché n'est-ce pas pour être un excellent acteur

donc li war mooy lépp li ngay def nga jàng ko jàng nag dafa bari ay anam nit ki soxlawul ngay xam lépp waaye man ngaa xam la nga soxla ci kaw nga xam fañ koy wutee ak nañ koy wutee nga jox ko cër jox ko àq ba nga xam ne loolu lay laaj ba nga mën caa jot waaw mbir mi loolu li ngay wax dama la koy dëggalal ndax man théâtre sur scène mom laa def lan mooy sa kàddu gu mujj fii ci plateau bi waaye yàlla nañuy yàgg di daje euh, suma kàddu gu Euh, nit ku nekk nanga góor góorgóorlu ci la soxal dans la vie y a pas de mm-hmm. nit da fexe rek nga ñaq nga jëriñu ak lu mu mën doon nag mu nekk art mu nekk ouvrage mu nekk technicité euh, mu nekk médecine mu nekk sax njaay parce que gis nga yàlla rek moom mooy barkeel te it euh, lu ñuy wax ne gis nga lumière mi ngi fi lëndam jeexee waaw la lumière est se trouve au bout de l'obscurité kon maanaam nit xam nga takkul nga ñafe gëm dara dem ci jàpp te bañ a ndax nee na bu dogul ah ñoddi bu dogul. daal di dikk ah merci voilà c'est ça. merci beaucoup tonton Mody ñoo ngi lay jaajëfal. waaw merci à toi merci beaucoup merci kontaan naa